waaw di la delloo ziar gaal waaw di la nuyu di nuyu ñi nga àndal tamit quoi waaw. tey ñu fekk la open press su Bécaye nu ngeen waajee ak 100 pour cent bi. waaw gis na ñun xam nga parcelle moo ñu ñor quoi te Bécaye moom wax dëgg yàlla sunu grand bu baax la wax dëgg yàlla amul fayam quoi nit ko am la ku yëg doomu aadama la te nit moom boo yëgee doomu aadama yi rek gars yi dañu lay yëg quoi parce que àdduna solo ñun loolu lañ fi am waaw. mais ginnaaw loolu ñu ñëw ci réew bu ñëw say préparation ñëw li ngay wàcc ci saison bii nu jëm. ginnaaw bi nga jógee ci jaas yi pël ak léegi yan adversaire lañ la proposé. waaw adversaire bari na gars ñu ngi wax rek mais sotteegul quoi waaw tey jii da ngay bëgg ñii ñii bëgg la waaw. léegi yow ñeen nga bëgg. man ñi ma bëgg bari na. tuddal tur lamb xam nañ ko. tuddal tur man ak Thiatou Daouda Fall loolu mooy lamb ji. ak ah, Thiatou Daouda Fall. waaw loolu mooy lamb ji. loolu diisul ci yow. bu bëggul moom ma wala santaan ñu ngi. Ah. waaw. mais bu dee ci xale yu tàng yi. non man moom gisuma lu tàng quoi. man moom gisuma lu tàng parce que kuy daw xasaw ba dal si pôlu mbalit bi da nga xam ne xasawoo pôlu mbalit baa ngi nii waaw. mais li jaaxal gars yi bii passé daa metti trop ci yow. non làmb moo demee noonu parce que bu yomboon tey jii gars yi danaan xam ma mooy loolu te làmb yëpp mënul yomb am na yu des yu koy gën yi ñëw waaw. mais gars yu bëri dañ koy waxtaanee ci groupe dañ laa jàpp ci gàllaaj ñii ne da ngaa sonn rek lan la ci. non ñoom loolu lan gis rek. mais man moom gisuma gaal ak waa xëy na lamb jee toll foofu rek waaw. noonu la demee kon des fois da ngay am takkusaan yu gaaw des fois muy yéex tamit. non beneen saa yi faa muy yéex quoi ndax xam bi taxawul ñëpp seetaan nañ lamb ji mais man adversaire bi mooy bëral boo taxawee fat fat ma jëlee la fa waaw. mais ginnaaw loolu. dimanche lamb ju neex daa amoon derby parcelle Pikine bi yoon waa Pikine gagné ndax seetaan nga combat bi. non parcelle ak Pikine du derby gars yi ñoo ko def derby. derby parce que parcelle moo mën Pikine waaw. parcelle moo mën Pikine. moo mën Pikine fuuf du benn sax. ci saison bi 1-1 la Franc daan na soq Pokola daan na Dame Suguer 1-1 la. ba léegi parcelle mi ngi daan. mais ci saison ren bi li ma lay a faral di xam démb la du tey. mais ren bi 1-1 la. Pikine mënul yab parcelle ba léegi ñu ngi daan. mais la pokolaa ci Pokola. la Pokola Balde. Pokola non instant yii moom mënu ma wax si moom quoi waaw. moo tax doo wax ci moom. non ma wax si moom. mais yëg nga ne réew maa ngi waxtaane sa diggante yàgg. ah ñu ngi koy waxtaane non kon xam naa dafa exeegul quoi. waaw proposé guñ la ko. non proposé am nañu suy wax nii rek waaw. mais danoo d'accord agul quoi. defe naa Modou Anta am na lu mu la ci junj. waaw am na lu ma si junj. waaw am na lu ma si maa ngi xaar rek parce que. ndax man daam ñu may déglu man làmb leen laa si am dafal bëre ji li nekk sama ginnaaw dafa bari tey jii mbëri mag li ñuy mobiliser man loolu laay mobiliser wala lu ko raw waaw te daa may seetlu si làmb waaw gestu waruma daal mais Abdou Bakhoum daf ni Pokola bi mu daane daam su geer a pare Franc lañ soxla est mën na dem ci Franc direct waaw xëy na xalaatam la wax rek Franc la soxla la wax xëy waaw moom nga du jaar a ah, ne ah. <laughs> dal bu bi daal mi ngi nii boolu mbalit bi dégg nga bu xasaw xundu bi. dal bu dal ba ak mbawar mbawar yi nii. waaw mbawar bi yëpp ak aussi man ne xam nga Pape Yada xam bu ñuul Ousseynou Laye xam nga Valdo sama grand Alima gis li mu def keroog dimanche. waaw kii dem combat ñaanal yàlla may ko ndam sedd ñaanal Momar Tomba. bépp mbër bu am combat muy parcelle muy Cambérène yàlla la yàlla may ndam guy parce que loolu ñun suñu fierté la ku si am ndam ñun suñu ndam la boo daanoo ñun tefet la moo tax ku si am combat dañ siy sonn taxaw si mais maa ngi sant mafia bi fépp fu mu ne grand yoo fàttewuma la ñoom Zos Kaw Bandi Maki xam nga sant la Opine Dio si la millionnaire xam nga ñëpp maa lay sant ak waa Cambérène aw ma seen maa ngi koy ñaanal tons yàlla may ko ndam lu sedd guy mu defaral bër mu ñëw ma gémaat ko sëñ Fall ah ah, ah mais fi ñu jeexalee rek yàq pokola bi est-ce que bu taxawoon mën nañ ci xaar door mu daanu <laughs> waaye eh, man moom gémeur laa quoi bi baasa gém laa andi woon gis na lamb ñu mu demee mais bi di ñëw maa ngi indi beneen waaw. Pokola dañu gis 3 kaw am na ko. non loolu dara si làmb quoi waaw Dame Souga di ko wax décourage làmb noonu la xam nañ ni moom lu ko dal dafa me mais day entraînement day def li làmb laaj lépp kon mbir suñu borom la natt bu ñëwee da nga koy nangu parce que gars yi xamul lool dañuy fàtte démb andi tey mais Dame Souga ko xam xam ne champion la mais di ko ñaanal xam nga mooy loolu mu toog xoolaat lim laaj mu def ko. parce que làmb ñëpp xam ne dafa metti waaw te gars yi xam nga la ñuy toppee mbër kuy daan waaw te làmb mbër day bëri daanu sax xam ne kii mbër kaamil la yow mi nekk ak moom nga xam ne kii mbër la mais gars yi xamul ni mbër xam nga da ngay bëri daanu rek ñu ne kii du mbër critique la te mbër xool day ñëw daanu nga xam ne kii mbër kaamil la mais borom bi moo koy tuddee noonu tey jii benn mbër mënul taxaw fi ni du ma daanu muy man muy sama morom boo daanu léegi na nga lu mu yàgg-yàgg mais di ñaan yàlla na yeex di ñaan parcelle yàlla fi tamit di gën a dugg waaw yaa ma gën a xam ñëpp. ñu jaajëfal la. waaw di la di ñaanal Franc tamit ah Franc. waaw yàlla may ko ndam lu guy bu gaaw bu yomb. ba mul benn werante amet loo ñëpp. maa ngi leen di ñaanal bépp mbër bu am combat. maa ngi lay ñaanal Dame Sène sama grand maa ngi koy ñaanal. xam nga békaay mi maa ngi koy ñaanal ndam lu sedd guy bépp mbër nag ku lim da ngay juum. mais sant naa mafia fu mu nekk yëpp di sant tam waale waale benn grand bu baax la quoi waale da siy jàpp quoi parce que nit bu lay conseil at du alal man ba may fréquenté alal sax dama lay taw man ñu may àndal xoolal waaw xam nga rek seen i cent seen i téeméer parce que sëñ Bamba dama am combat du borom moo ni sama jom pour bu ëllëgee kenn du am lu mu wax waaw sëñ Fall di leen ñaanal jaamu nag waaw